weeru koor gi orange money mooy ànd bokk ak yéen ay xewlu yaatu yaatu tàmm leen di jëfandikoo seen carte orange money ngir jot enveloppe ndogu 25000 maanaam juróomi junni yi orange money di maye bés bu nekk orange money weesu na kalpe ramadan mubarak orange money naa li nga def léegi léegi. man la man waaye sa poos yaa ngi sonné rek. ah sa poos yaa ngi sonné rek. poos poos nekkul. xoolal sa poos man de maa ngi ci YouTube bi rek. poos poos nekkul seetaan ñoom Pape Cheikh Diallo émission guddi yeeg. waaye man gisuma ci RTV nag man loolu ma jaaxal. télé yëpp laay gis guddi bi ñuy ràcc di wax ba mu def RTV. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. eh, eh, eh, eh taal ay pousse. jógal jógal jógal yow. xaaral balaa nga toog ñu wax la yow moo jàmm boppam. yow naa bi ngay seet bëggu la. Sankara Mbaye. Ah, sa teewu bongo man bi yow yow sa teewu bongo man bi nga naan kii Sankara Mbaye xanaa yaay am bongo. noté naa loolu. na na ngeen na ngeen def na ngeen def leen na nga si nekk kan. booy bi ngeen ma doon waxoon. booy boobu booy boobu eh, booy nokkaan ngeen nga fi. eh eh eh juróomi ngeen kenn fii. donc. xanaa sonaloon dara. xanaa ñëw ci kër bu leen nuyoo ngeen dalal ko sax. au moins ak sa sept yi nga def. kenn yow mën nga jóg wala mënoo jóg. waaw lan moo fi indi sax. baa bii sax gémmiñ lay mujj de. ah jógal. lan moo la indi fii yow. suukaru koor moo fi. suukar lan. waaw lii doo ko wax yow sa mbaax bu seen seen nii la mel nag. seen mbaax dafa modeste nii la mel. dafa modeste gis nga guerre guerre bi ak Ukraine ak ak Palestine bii. Poutine bii. waaw taxawaay rafet la ci taxaw. mais yow Palestine nii day yónnee du Palestine gii. xale yi bu ñu ko séeree dañuy jooy. ci biir kii gis di wax lu baax. kay nii la mel nii ñu askanam booy. sa jikko bàyyi la nga yow. tu es de bonne famille et de bonne mœurs. enfant guidé et maa xam sa ndey xam sa baay. keroog a nga a dafa taw nga daal di jóg. ci lii bu tey xet. li ko yaay ñëpp jóg. mun la naam nga ne ko tey laa noppal. yow ba nga juddoo sa premier jour hôpital yaa fay sa couche yow. yow booy eh, eh ndaram doy. anniversaire ma fi eh voy eh voy bi boo doon def doy yaa doon def doy foo leen wërsëg moom la. aywa kañum kay. lay lay la moom la. tu ne économie lay def de. waxoon ko man dara waxoon bu dugal. waxoon ko waxoon man dara man tey dégguma la gisuma. lay daa booy. resemaan. baax baay. Ah. baax yaay baaxi bàjjan. yaa njëkk taxaw ni kuy laal sama bàjjan. <laughs> waaye sekk jël ko ci yow. <laughs> booy. Eh, eh, gañ nga wër sër ba ngay dugg école. yàlla dogal na monsieur yi cinq lañu. nga boole leen pakete leen fay leen ñu jàngal. dëgg la. sa cursus su sept nga def ko ci benn weer. yow. waay waay lii dafay ñëw. saa waay li ma fi wax kenn waxu ko fi te benn yoon nga jaar ci ma. lii. kii ma la doon wax yow daal ko. maa ngi jéem a buy ma ko baax bul def loolu. wax naa la tax eh, yaa ma xoolal dama njaboot. sama bàjjan loolu dafa sa bàjjan ku baax la. dafa amul moo njëkk woon boppam bay jëy fay dafa boo ma daal tey merci Keita merci waaye tey baax na yàgg na. Kaaw baax na yàgg soo ko Kaaw rek. c'est ça junjum na. mais nag seen déy bi. waaw léegi nag dafa a. ah déy déy amul fi. déy déy déy kii mooy soxla naa na mooy bugg naaya. waaw waaw. ah bu baax sax. ndeysaan yow yaay aimé naaya ngay aimé xale bu baax. mais nag dafa am ay opposants keroog ñu fi ñëwee. waaw ñoom seen ay. man maay naka ndi ne naaya ndijaayam sama xarit la moom ak man ñun ñoo tegundoo neegu góor ñoo defundoo lépp man ak ndijaay naaya su fekkee yow bugg nga naaya. bu la neexee tey si ngoon léegi léegi léegi ñu dem si jàkka bi ma xool imam raas foofu. waaw waaw. ah. loolu mën na nekk ci loolu euh, wax lépp dëgg la lépp dëgg la ndax wax dëgg na xam ngay wax ba yàgg jant tàkk yokku leeram loolu mooy wane dëgg la. waaw wax ne xel nit ku baax nga. dafa bëgg a am. doxu pour. te ak mooy souvent gis góor fekk ci kër. déedéet. kii la bëgg billaay moo li àll musuma gis. billaay parce que rasulilah. musul musul musul xool keneen moom laa yàq. te gis nga li jigéen ñi di def nii moom defu ko de moom def ko tey nii moom day xaar en gros rek mu joxe ko. moom jogu ko détaillé de déedéet. billaay ku baax. man de man de Kaaw. fekk naa Naaya ci salle. muy seetaan novelas yor photo waa ji di jooy. mbooloo bi may leen ka may leen ka nag mbooloo may leen euh, ka léegi yaa possibilité tey ma ma ma yóbbu waaw maanaam takk tey yóbbu tey yaa possibilité nga takk tey yóbbu tey da def lii ndem meele defal lii ndem meele koor am na li muy dégg ngay def lii ndem meele baax na ayca bëgg naa bëgg naa am na xaalis am na xaalis lu ngeen kupp ma baat nañ dem Arñeen Arñeen Arñeen kaw bokk Arñeen. tey xaaral mu ngi ñëw toogal xaaral mu ngi ñëw. ngay ñëw kon ni ngi convaincre naa yaa fi. li nga ne kii bàjjale moo ñëw la. xaw ma kuy laal. xaw ma ko xaw ma ko lépp lu ma fi wax xaalis a tax bokk. Eh, xaw ma ko kii manqué ñu. ñaata nii nii may wax ak yow yor naa ñeenti junni la ma jox yow ñaata la la jox. ma indi la. location kër gi maay yaay dajale kañ la lool. ma jur ngay jaan. ah ça va. ça va sant yàlla rek. waaw. dafa. mun nga wax nga ku njëkk wax ak moom. Mm. yaay nekk personne morale bi fii. Mm. waat après bi moom dina la expliquer man ma expliquer li. Aliou moo xew. ji rek sa waa ji baax ji rek borom teraanga ji. waaw kooka bëgg na la. ah big moom daal moo fi ñëw indi tànk jàmm ak salaam indi tànk mbëggeel cofeel ak l'amour boo xam dafa sincère. mu bëgg la boole ak moom ngeen marié. Mm-hmm. bon li xam naa sama gars yi dina ndax ñëpp mos. jim jim jim wax daanaka sax moom wax na lépp xanaa rek damay mottali ndax bi nu gëstoo famille am nag mhm. ndeke moom bokk na ak la joor mhm. bokk ak Maba Jaxu Ba mhm. mu nekk it borom juddu gu rëy bokk ceexu rëy kon naayaa jàppal ni boo bu la kii rombe jëkkër ju baax romb na ñu bëggoon nag say kàddu méngoo ak kàddu yan ko jot a jox ndax ñun neneen ko. Mhm. dinañ la may na ci kàttanu yàlla. waaw mat na waaw mat na waaw wax dëgg yàlla li mu ko waxee rek ñun duñu waxaat. duñu waxaat sab euh, jibi wax na tafa wax na. Mhm. man awma lu ma wax yow nag yàlla moo ñu boole nga nekk xale bu baax. xale bu bugg lu baax kon suñu gisee lu baax muy ñëw si yow si lu baax te ñu lay wax kaay lu baax mu ngi nii ndax bu ëllëgee nga am lu baax soo leen gisee lu baax wala boo leen gisee xaalis ah? lu baax lu baax xaalis lu baax la ah xaalis baax la yéen yéen xaalis la tax ngeen bëgg ma maye noonu wanteer ma bale ma ma génn kër ah? ah lu tax yow Ibrahima chaque bis bu ne lu mu lay wax naar sëy waaw waaw léegi bu ñu may wax sëy léegi yéen xaalis la tax ngeen bëgg ma sëy damay laajte rek ba xam xaalis yéen yéen. Ah. amoo ci tuuti lamu. yéen barki démb waa ji ñëw fii ngeen toroxal ko ne ma naayaay carrément bañam. dañ ko doon testé xool ko léegi yéen wuyu leen ma yéen ci ci ci bantaan ban temps ngeen testé waa ji. waa ji benn yoon la ñëw ci kër gi. mais ñun def nañ suñuy gëstu am nañ ñun dañuy def investigation. ay journaliste investigation. waaye d' accord d' accord d' accord <laughs> waaye naaya naaya man keroog fekkuma fi. dafa lay fekk fi ak jibi mais man tey tey man bi ma ko gisee ma jàng waa ji ma xool observation xool vocabulaire am bi ma xam ne papier am normal man te may xam nit. yow ci benn bis kaaw. man xanaa xamuloo ma. kaaw ci benn bis. billaay man daal mënoo leen ma wax lu may dégg. bu fekk ah yéen xaalis ngeen di sëy. jool na tamit de. waaw léegi xaalis ngeen di sëy. eh xoolal waa ji garaaw na yow physique yow physique ak xaalis. yow nga ni xaalis yow nga ni xaalis man maa moom sama xol joxuma ko sama xol. eh eh, eh waa ji wax na ni kat de may na la. sa xol pour lan. loo koy doyee loo koy doyee lan ngay doyee sa xol lan nga koy doyee. Eh, yéen de lii naturel la tuuti. ñaan naa la fi jàpp billaay barki weeru koor bi. li ma ñaan mayu ma la ko sëyil ak moom ngir yàlla yéen xaalis moo tax ngeen bëgg ma wante wili ban sëyu ma. maa yow tamit ñor nga am de. waaw xam nga tey jii ma jig de kaay ma teel kaay ma teel. ah dinañ waay jii day dem saal day dugg saal bi. demal nga xool rek essay essay rek. yéen waa ji da leen jënd xanaa. ah ah ah. ah. ah man de xam nga mos l'amour demal nga mos l'amour baax na d'accord. day guddal fan. maa ngi xool daal dinaa xool. waaw baax na na naturel rek na bëggee bi naturel. demal nga guddal sa fan l'amour day guddal fan boo ko gëjee def mun na gàttal sa fan. baax na baax na. xam nga sa àdduna moom di denc. waaw weeru koor gi Orange Money dina ànd bokk ak yen ay xéwal yu yaatu waajal ndogu bi moom ak Orange Money dong la fii ba le 22 avril jëfandikool sa kalpe Orange Money ngir mën a bokk semaine bu nekk ci 100 clients yu ñuy may 25 000 francs CFA. Et eh oui, privilégiez votre calpe Orange Money pour vos opérations de transfert national, sous-régional ou de réception internationale pour tenter de gagner 25 000 francs CFA chaque jour. weeru koor gi ak Orange Money dara du ko dab Orange Money weesu na kalpe Ramadan Mubarak. Orange Monnaie est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange Monnaie. weeru koor gi orange money mooy ànd bokk ak yéen ay xewlu yaatu yaatu tàmmu leen di jëfandikoo seen kalpe orange money di jot enveloppe bu ndogu vingt cinq mille maanaam juróomi junni yi orange money di maye bés bu nekk orange money weesu na kalpe ramadan mubarak orange